saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa sëriñ Mbacke Ndiaye ancien ministre ba nekkoon porte parole foofee ca gouvernement Abdoulaye Wade ku dégg Serigne Mbacke Ndiaye ci sunu làmb da nga laaj bi ministre lu mu xam ci làmb ku liir sunu làmb ba déglu kàddoom ya da nga xam ne bi le ministre topp na làmb xam na ko yàgg na koo seetaan moom Serigne Mbacke Ndiaye fa ñu ko laajee te diggante Alioune Sarr ak Matar Ba kan mooy remplacer bi le président CNG moom foofee la dëgg ca moom mooy je suis toujours en contact avec Matar Ba moom le ministre Matar Ba maa ngi dégganteeg moom daal dafa bëgg a jiite CNG waaye laataa moo dem dafa leeral foofee ne je ne suis pas intéressé même bu ma xamee ne mën naa yor CNG mën naa koo jëme fu ko ñëpp di xaar même bu fekkee ne lamb ji naa koo yóbbu fu kawe seeni wu ci bile CNG li ko waral nag mooy je suis candidat à la prochaine élection présidentielle élection présidentielle yi moo tax mënumaa jiite CNG waaye bu ma ko jiite woon bëri nay point yoo ne faaw ma discuter waat ko faaw ma ko ba ci njëkk mooy kase yi danaa ko régler une bonne fois pour toutes déclarer CNG 10 millions wala 15 ba pare fay mbër mi lu ëpp loolu loolu tricherie la bu ma fi toogoon loolu bokk na ci li may njëkk a yëkkati ba mu jeexale nag mooy il faut rendre hommage à Abdoulaye Makhtar Diop ak Gaston Mbengue ñii ñu liggéey ci làmb la ñu ci bay seen waar lañu dafa jaadu jot ñu rendre leen hommage moom Alioune Sarr ma ñu war a rendre hommage le 31 bi bii la ñuy xam avenir ci bopp CNG bi ndax day continuer di ko jiiteem déet wala dañuy remplacer indi keneen en tout cas li am ba des mooy le ministre Matar Ba mu ngi ciy liggéey ne ñu ngi jàpp ne moom monsieur le ngi lañ bëtti a mën a remplacer président Alioune li muy décidé ba pare dafa toog di octobre jot jot li am ba des mooy date boobee bu weesoo danañ xam CNG bi kan moo koy jiite ndax président Alioune Sarr mooy delloo nekk ca bopp ba wala keneen mooy ñëw foofee buñ fa àggee danañ xool ba xam lamb ji ban xar kanam la doon def seen première face foofee ca Vox Arena Mama Lamine ak Garga jàkkaarloo nañ seen jàkkaarloo bu njëkk keroog ca face à face ba Mama dafa ñëw tàng jër ba mu yëkkatee ay kàddu ñëpp danoo xam ne kii xiif na adversaire a technique waaye danaa leen wax leen ngeen jàpp ko seen ëpp doole maa ko gën a technique maa ko dàq xeex lambam ba lambam da ñaari kele rek la ci am te bu soobee yàlla du ma ko def man du ma mbër mu ñaari kele di daan moom Garga ba mu jëlee kàddu mooy wax ju ji da ko cee matul xam naa li ma mën amateur yi xam nañ li ma mëne gaay may seetaan xam nañ li ma mëne kon wax ju ji jaru ko damay xaar ba bés ba moo woon ko sama bopp yooyee kàddu mooy la jot a tukkee ca bile face diggante Garga ak Mama kenn rek ci nekk mooy Yékini Junior njort na ne moo ko jaaxale mooy moo daan caatu bu Malika Mbooloo Mame Balla Junior moo daan l'enfant de Jolof bu ñàkk seen ñaari défaite ya caatu Piyol bu Boy Gandiol moo daan soq de Boy Kaza bu Grand Médine Mbooloo moo daan Bébé Balla bu dee seen coach ba Abdou la mu xam le mooy sunu écurie bi dafa amatul ay ténor sunu yaakaar yépp ñu ngi ko wékk ci Sambo Tal Biris Diouf Mame Balla Junior waaye nañu liggéey rek te xam ne luy jiwu ba jeexul jógu fa jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah